Heavyweight.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 yàgg nag mu bëgg alal ju bari mu xeeb la mu doon am ci menuisier bi dal di dugg ci njaayu mi yàmba waaye nag loolo ko mujjee sànq de ndax police bu Grand Yoff ñoo doon def patrouille ba yem ci bërëbam fekk fa 14 cornetu yàmba ëppatalaw naka noonu lañ ko yóbboo ci commissariat bu Grand Yoff placé ko garde à ba mujj ko defeere ci wàllum njaayum yàmba ay waay xale yi bay leen yàmba ji Sénégal nag léegi ma waxati ko yàmba gi ni muy duggee ci réew mi jéggi na dayoo te fi mu ne tey dañ koo xam xammee ko mën ko muqi ba duñ ko jaawale kenkiliba wala ngooñ bu ñu taal ma ne li yàmbaa bi di def ci réew mi ëpp na gone yi dañu koy muqi ba ne tangalang kaddu seeni jaasi ku ñu dajeel maara dee taali tey yàmbaa jaangi dof la di sànq ndaw ñi loolu yëpp nag boo ko xoolee da ngay xam ne du tuxkat ya jaaykatu yàmbaa yu ndaw ñi waaye grossiste yu ko fii dugal ma ne ñooñu la ñu war a song la wax moo tax ma ne ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax ay waay xale yi bàyyi leen yàmbaa ji kii tamit ab dawalkatu sareet la jiw yoo ci turu CMB dëkk ca zone captage foofoo ca Grand Yoff moom tamit daa ñëwoon ca quartier Arafat ngir jënd yàmbaa bu mu muqi far dal ci patrouille police bu Grand Yoff moom it nee naa leen xale yi yàmbaa moo leen gënal ginaar gu ñu njoñ sa waay bi mu gisee auto élément brigade de recherche bi te cee teg brique dal di fëx naka noonu ci la ko yi toppee ba koy teg loxo borom saret boobu tamit gannaaw ba ñu ko dégloo defeere nañ ko parqué ma ne leen lii rek mooy feesal kaso yi dëgg dëgg nag ma waxati ko ñi ñu war a teg dëgg mooy dila yu mag yi moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax chauffeuru taxi bi nag liñ ko tuumaal ëpp na moom daal dañ ko tuumaal ne moo yegg ci ab corom bu am 15 ans ay waay alalu procureur nga laal de chauffeuru taxi bi mu ngi am 25 ans bëggante woon ak xale bu ndaw bi ñoom ñaar nag ñu waxtaan ba jubóo di génn xale xale bu jigéen bi xam ko famille xale bu góor bi tamit xam ko ne pat bay leen ñuy génn ma ne génn nañ lu toll ci at laa wax li ndi coow li nag famille xale bu jigéen bi dañoo yegg ni waa ji yegg na ci seen kaw doom op op op naka ci la ñu jëlee xale bi daal di koy yóbbu hôpital ci ab gynécologue xale bi ba ko gynécologue bi xoolee ci la gis ne maara deetaal yi caxat caxatee nañ ko ba mu yàqu-yaxeet fi mu ne dara desatu fa <laughs> ma waxaat leen ko xale yi bu ñuy génn duñ ci yem de ci noonu nag la famille bi porté plainte ca commissariat bu ndaamaatu yenn membre famille xale bu jigéen bi accusé waa ji ne daa violé seen doom waaye nag lu ci mujjee am ci kanamu enquêteurs yi moo doy war ndax xale bu bi dafa défendre waa ji ne musu ko violé ba teg ci ne seq na ak waa ji lu toll ci ñetti yoon ah! ñaari waa ji mu ko ko defee këram beneen ba ca des mu ko ko defee ci seen biir kër moom xale bu jigéen bi ay waay ana waa kër gi ana ji ñu jinne moo violé nag ci sofooru taksi bi moom weddi na ba tëdd ci naaj bi ne xale bi da koo sosal musul séq ak moom ah yi gën a waar nag mooy xale bi sax nee na fi mu ne bëggatul waa ji ma ne ko na gannaaw ñetti doos nga ne bëggatoo waa ji nee naa leen dee leen seetlu xale yi ndax nee naa leen xale yi léegi lu ne ne ñu xam lu ne mu doonoon seen xibaaru bës dig daje samedi yeneen xibaaru bës